nuyu bokk yi fi teew yépp di leen siyaare bu baax tey di leen ndokkeel tey am mbégte bu baax ci seen teewaay bu tedd bii ngeen fi teew di siyaar bu baax Cheikh Abul Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadali ak kilifaam Cheikh Mouhamadou Mountakha di leen ñaanal yàlla bu baax yoo xam ne moom la ñu yéene liggéeyal seen maam ci lislaam suñu borom débb leen kàttan ban defee lépp ci seen sago di nuyu bu baax ak asiyaar Cheikh Mouhamadul Mahmoud Niang xaadimul adratil xadimiya di ko ñaanal bu baax di ñaanal Cheikh Aboubacar Cheikh Mouhamadul Muntaqa di jaajëfal bu baax sunu kilifa bu baax gi ñu doon defal waxtaan wi di sëriñ Mbàkke Abdourahman li nga xam ne ni la ko bokk yi doon séentoo ci moom lépp suñ borom def na ne def na ko nu kawe njortu ba yaakaar naa ni bokk yi fi teew yépp te doon teewlu waxtaan wi ku ci nekk rek taataan nga ci loo xam ne soo bàyyi ko fii ci mbooloo mi da nga ko mën a jariñoo kon Serigne Bakke ci turu seet yi Serigne Afiye yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal jataay bi yépp noo ngi lay sant bu baax te di la gërëm te di la jaajëfal bu baax ci nag ci sa ci sag yombal ak sa woyafal te ni nga ko waxee léegi ca tàmbali ba rek ci ak bokk yow moom ci jataay bi nga bokk ci kër gi nga bokk ci ak bokk te xam nga ko bu baax ndax li nga doon soññee yow yàlla dogal na wax dëgg fi yàlla am yaa ngi ci tànk yooya di jaajëf bu baax itam kii la doon defal taxlixaat bi di sëñ Abdou Lahad Ñang ndax moom sax itam ci kër gi la dëkk njaboot gi la bokk itam ak sëñ Bàllu Baay Alxaaji Fàllu Ñang mi nga xam ne moo doon ubbi jataay bi di leen jaajëfal bu baax ci wuy si gi nga xam ne mbooloo mi yëpp wuy si nañu ko ci gim leen woowee te jataay bi dara waralu ko rek lu dul lii sëriñ Mbàkke Abdourahmane doon doon waxtaane ngir lu ko gën a dëgëral gën koo sàmm ak gën nu koo bàyyiloo xel comme ni nga xam ne noonu la ko tuddee ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu tàmbalee ko ci kaw alxaaji Mbàkke bu sëñ suñ Ka ba ci Cheikh alxaaji Mouhamadul Mahmoud ñag mii moom itam liggéey ci liggéey bu réy réy ba nga xam ne yaakaar naa lu bari jaboot gi xamee nañ ci moom lu baree bari ci bokk gi noonu moo ko waxee itam defe naa ne bu yaatoo ci mbooleem kër yëpp rek kenn dootu réeree sa ku ngeen taseeg sa mbokk dootoo ko réere kon Serigne Mbacke jërëjëf borom ëtt bii ngeen fi daje ak jaboot gi mbooloo mi daje nag muy Cheikh Afia Ahmed Niang di kenn ci bokk yooyu ba tey sëñ Abdou Soxna Kumbaan moomu doomi Ahmadou Asta Amadou Asta ñaŋ moom itam Asta Mbàkke mi ko jur doomi maam maharam la mooy Asta Mbàkke Awa Ñang euh, doomi dooni doomi soxna Awa Buso ni ko ñëpp xamee soxna aw Buso nag moom bu ñu ko tuddee ñëpp xam ni mu fi demee moom du jàll du jàll du jàll leeral waaye itam li bokk ci askan wi di jariñ tamit nga xam ne bokk yi dafa am lu muy jariñ bokk ci askan wu baax am na lu muy jariñ loola itam yàlla dogal na bokk gi mu ci bokk jariñ na ci moom lu bari ndax waral na mboolem loo xam ne bokk askan woowu mu bokk moom lañ doon sénti ci moom daje woon na ci moom bi nga xam ne ku tedd gi Cheikh Khadim yàlla anhu yàlla dogal di waajuram di léppam moom la ko waajuram tegoon ci loxoom muy sëñ Abdou soxla Kumbaan ndax jëlee na ci nettalib sëñ alhaaji Mouhamadul Mahmoud ñangi mi ci biir mu ne sëriñ Yaafe moo ko ko wax moo ko ne sëriñ bi moo ko ne yow ba nga gënee àddina rek la sa la sa waajur jële la ci ab ci lal ba ñëw yët ma la jox ma la na ma jébbal naa la bu dundee yow la dundal leleen lu mu def yow la ko defal nee na waaye yàlla dogal mu des jolof ndax waajuram dafa teel a génn àddina ndax bi muy génn àddina moom xamu ko waaye nee na bi waajuram wàcce liggéey mu des jolof ca rakku baayam bi bokk baayam lépp muy sëñ Mor Soxna Kumbaan mu des fa di jàng alxuraan moom moo ko jàngal ba mokkal alxuraan tasanteeg sëriñ bi nekk ci géej gi waaye bi sëriñ bi jógee ci géej gi ba jëw daaru mannaan ba toog nag la ko laaj soxna awa mu xamal ko ne ko mag nga jolof mu fàttali ko ne ko moom bàyyam jébbaloon na ko kon nan ko woo mu ñëw soxna awa yónnee woolu ko mu ñëw bi mu ñëwee ñibbisee nuyu si sëriñ bi siyaare ko sëriñ bi xamal ko ne ko sa bàyyi de gis naa ko ci alamul barsaq mi ngi ma lay dinkaat bi ma nekkee ci géej gi sëriñ yaa fi ña ngi sant ci yàlla lool na ko man de xaw ma sama baay dégg naa rek ñu ne dama ba ma gënee àddina dañ ma laa jël jébbal ma la waaye man xaw ma ko sëriñ bi xamal ko ne ko noonu la demee de mu daal ne ko lool nag sama diggante sa diggante ak sa baay la waaye man sama diggante ak yow mooy jébbal naa la sama bopp sëriñ bi laaj ko ne ko foo toll mu ne ko damay jàng al maa ngi mo jàng naa alxuraan ba mokkal maa ngi bindi kaamil ba toll barab sàngam na ko na ko andi te jëlaale say bagage te xam ne da ñibbisi boo ñëwee itam foo ma dégg rek nag ma fekk foofa nee na bi bi mu delloo ba àggale kaamil ba daal di ñëw daaru mën naan ngir indi si kaamil bi bi mu ñëwee gisee soxna awa soxna awa xamal la ko ne ko sëriñ bi lay jëlewaat nañ ko fi ba mi wax nañ ne jéggi na dex gi ba jëm gànnaar nee na sëriñ Afiya Ñaŋ daal di dox nag ànd ak mbokkam sëriñ Abdou Dia Mbàkke Diyooli ngir fekki sëriñ bi gànnaar daal di dox ànd ak sëñ Abdou Dia di dem gànnaar nee na sëñ Afiñag nee na ko bi ñu yegg bi ñu yeggee ba Dagana Cheikh Mouhamadou Lam Diop Dagana moo ji doon bi lijjanti ngir ñu génn ngir ñu dem ca fekki fekki sëriñ bi jéggi dex gi ngir mën a fekki sëriñ bi nee na far bi ñu ñëwee dëkk fu ñuy wax gàdduk fekk fa Cheikh Ibra Faati borom daaru mu xamal ma ne seriñ bi nee woon na yéen bu ngeen ñëwee na ngeen yesi nee na ñu daal di fekki seriñ bi nee ba mu àggee itam ci gàttal nee na ba jox sëriñ bi kaamil bi ba sëriñ bi xool ko seen kaamil bi wow lool nee seriñ bi sant ci yàlla bu baax xamal leen laaj leen nu ngeen def ba ñëw ñu wax ko ko mu ne alhamdulilahi rabil alamin seen kaamil bii ak ni ngeen def ba ñëw de xamal na ma ne jur doom yar ko jàngal ko baax na lool ku jur doom jàngal ko yar ko jox la ko da nga xam ne jur doom jàngal ko yar na baax na lool nee na noonu lañ fa dese nag di liggéeyal sëriñ bi ci nam bëgg ñu liggéeyale ko noona nee na foofa itam sëriñ bi la ko sëriñ bi njëkk a defee mu nekk jëwri ni daara ndax nee na kaamil bi nga xam ne moom lañ fa doon jàng sëriñ bi joxoon na ko mu nekk njiital kaamil ba ba ni ñëwee Jolof ba ni ñëwee Njaareem 1912 nag la ko sëriñ bi ñëw yebal nag mu ñibbi si fii ci ci Touba ànd ak soxna Awa ak njaboot gi yëpp muy soxna Awa Bousso ak sëriñ bu so ak seen bokk yooyu ñoom ñëpp ñu ñëw Daaru Mannaan boobu fi la soxna Awa ne ba ni sanc si fii ci dëkk bi nee na bi ñu ñëwee nag leneen sëriñ bi dénkoon xamoon leen ne bu ngeen demee ba Touba na ngeen dande dëkk ba lu mat juróomi siifoo ngeen sanc fa dëkk di fa jaamu yàlla ak a liggéey jumaa ja ma fay neser bu yeggee ngeen di bàyyi koo foofa di julli si di julli si ajuma ca jumaa ja biñ ñëwee nag loolay sababu sëriñ Afia sanc fii ci wetu dëkk bi tudde ko bustaanu arifin ginnaaw bi mu tuddi fi sancaat fi beneen dëkk tudde ko nasru nasrullah ah, foofu it fa la doon bàyyi di def ni ko sëriñ bi ni ko sëriñ bi digale woon ba ni fi sëriñ bi bàyyi koo ba ni Cheikh Manou Fadal doone sëriñ Touba la ko doore jëlee foofu nag indi ko fii ngir xam bëggum bëgg sëñ bi ak taqoogum ko taqoo woon ak moom sëriñ Mouhamadou Fadal yabal ko nag mu ñibbi si fii nag ngir euh, sàmmal ko wala tool ko barab bu tedd gi di Cheikhul Khadim mu doon koo xam ne itam ko am xaas ci sëriñ bi la xaas yu baree bari ndax su ma waxee xaas ci mooy sëriñ Touba mii borom murid yi bind na aw kayit xamal ko ne ko yow sama murid saadix nga ci benn kaamil boo xam ne sëriñ Yaafi Ñang moo ko bindaloon te sëriñ bi itam wax na ca ne kaamil bi day loolee mu bind moomee mu ca bind boroomam moo ko digal mu def ca mu bind ca mu bind ca loola kon am na xaas ci sëriñ bi am nay xaas itam yoo xam ne nee na moom moo ànd ak Cheikh Mouhamadou Fadal ak soxna maam Awa Bousso ñi siyaari ci sëriñ Touba ca njaareem nee na bi xamal ko ne yéen na ngeen yàlla bu baax ndax maa leen warul ajjana loola it jagle la goo xam ne am na ko fi sëriñ bi am na jagle it goo xam ne nee na sëriñ bi mas na koo bett laaj ko loo bëgg mu ne ko yow rek laa bëgg sëñ bi ne ko yow mënoo def leneen lu dul bëgg ma am na itam yeneen xaas yu baree baree bari ndax bokk na ci ñi nga xam ne wax nañu ne sëriñ bi daana daananu faral di wax ne sëriñ bi dikkal na leen ba yaakaar naa bari na ci ñoo xam ne ci mujjam ci mag ñi nekkaloon nettali na leen ay yu baree bari yoo xam ne moom moo ko nettali ci digganteem ak sëriñ bi kon tawféex yooyu yëpp nag mu am ko nag ba ci gën a ba ca ba gën a tee rëy nag mooy lii ma leen wax sëriñ bi moo ko waxoon xamaloon ne koy yow maa leen warul seen àjjana ba da koo bind sax jox leen def ko ab yóbban mooy damintu duxulukumul janna loolu euh, sëñ Alaaji Mouhamed Mamoun nee na mi ngi ko mi ngi ko tuxalee ci ñi ngi ko tuxalee ci mbindum Cheikhul Khadim kon loolu loolu tawféex la ju rëy rëy yoo xam ne Serigne Yaafi Ñang am na ko ci Serigne Touba kon moo tax mbokk yi nag bu nu amee lu toll noonu ak jëmmi Serigne Touba mi nga xam ne moom moo boole bokk yëpp dajale leen fii doon xaas ci ñoom nag ñi ñi ñi bu nu leen woowee kon ngeen daje fii danañ ci sant yàlla bu baax a baax. kon euh, noo ngi leen ci sant ci loolu bu baax a baax di di di gërëm nag mbooleem mbokk yi nga xam ne ñi nga xam ne teew nañ fi te te wuy si njabootu sëriñ Afi Ñaŋ ci seen woote bii ñuy woote ngir waajale ko bis bu màgg bii nga xam ne moom lañu moo nekk ci sunu kanam di bisu màggalu Kazu te mag bisu màggalu Kazu Rajab boobu nag di boo xam ne ku ne xam ne ne mooy bisu sëriñ Afi wala mooy bisu njabootu sëriñ Afi ndax Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moom la soxna aw bu so daan wax ne moom ak Serigne Afia Niang ndax Serigne bi la ko soxna Awa daan wax nee na soxna Awa Bousso daf daan wax Serigne bi ne ko euh, Cheikh Mouhamadou Fadal man maag Serigne Afia Niang sëñ Mouhamadou Fadal mooy sunu Serigne euh, Cheikh mu Cheikh Mouhamadou Fadal Serigne Afia mooy sama doom waaye maag Serigne Afia Niang Cheikh Mouhamadou Fadal mooy sunu Serigne moo tax bi nga xamee ne Serigne Fallou ci bëgg gi bëgg Serigne Touba ak euh, fonk gi fonk Serigne Touba bi nga xamee ne dem na ba ak mu jëm ba xool ginnaawam diggam ak sëriñ bi. ak diggam ak ay bokkam lépp rafet baax moo xam ne ak cant war na ko ci diggam ak boroomam mu ne cant googu nag su ma si santee sama borom ca fa ma fa ma yàlla feeñal muy daaru salaam su ma fa bàyyikoo damay ñëw ci néegu soxna awa bi nga xam ne moom la ma yàlla jaarale ma mën a liggéeyal sëñ Tuubaa bay am ngërëmam ma jottali ko googee cant loolu mooy sababu mu daan ñëw fii cant googu di ko jottali sëriñ Afi Ñang bu fanaanee daaru salaam fanaanee fee sant yàlla fanaanee fee jaamu yàlla bu xëyee daal di ñëw fii nag daal di fekk si euh, taalibeem boobu di magam di sëriñ Afia Ñang daal koy jëbbal cant googu nga xam ne moom la sant yàlla sant ko sëriñ bi waaye nag teg ko ci jébbal si ko sëriñ soxna aw Bousso te sëriñ Afia Ñang boobu moo fi nekkal soxna Awa Bousso loolu nag sëriñ Fa Cheikh Mouhamadou Fadal ci njalbeen mag ñi ko teewe neen jàpp na ne 1960 la la ko tàmbali euh, waaye 1963 ba liggéey jumaa ji àgg xam nga ne daanaka Cheikh Amadou Fadal diiru li fi li fi jumaa ji li nekk ci liggéey jumaa ji telul leneen lu du liggéey jumaa ji waaye bi mu àggee nag la loola dooru fees mu def bu fanaani Daaru Salaam rek daal di ñëw fekki Serigne Yaafi Ñang waaye yàggul dara 1964 Serigne Yaafi Ñang jóge fi waaye bi fi bàyyi ko Cheikh Amadou Fadal daal di wéyal loola Serigne Alhaji Mouhamadou Mamoun moo wax ne nee na ginnaaw loolu 1964 dañoo jàppoon ne xëy na Serigne Yaafi Ñang rek a taxoon mu di ko def wala ñoom sax xamuñoon lu tax di ko def gis nañ rek muy mu fiy dikk waaye xamuñu woon lan moo ko taxoon di ñëw waaye neen di ginnaaw 1964 nag la daal di yónnee xamal ne sëñ Mouhamadou Mamoun ñëng na ko bu bis bi dellusee rek na ma ko daan defee noonu laan ko noonu laa koy defee moom itam loolu rëy ci moom lool mu fonk ko 1964 ba 1967 euh, nga xam ne ci la fi Cheikh Mouhamadou Fadal mujjee sëñ Alhaaji Mouhamadou Mamoun nee na gan googu yàlla dogal na ñoom yàlla tawféexal na leen ñu fonk ko fonki goo xam ne nee na yéeme na Euh, nee na bis booba mbëgtam sëriñ bi àgg na ci bég ba nee na waxtu bisub ajjuma la waaye dafa mujj mel na sax ku ku euh, jumaa gi xaw a fàbbi ba dañ ko ko fàttali na ko tey la ajjuma mu door a ñaan nee na ca bis boobee ca la leen waxe lan mooy ay bis bi nee la daal di ko moo mbokkam sëriñ Thierno Bousso Thierno Asawalo mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon di taxaw taxawaay booba nee na mu xëcc leen ba ñëw mu ne mel na ne de fonk bi lool nee na ko waaw fonk nañ ko lool mu ne xam ngeen lan moo sabab bis bi ñu ne ñun ñu xamuñu ko ñu xamuñu xanaa euh, rek màggal sa tànk yi ndax xam nañ ne yow day foo foo seq sa tànk yi jëmee ko rek foofa nga ne kese rek koo màggal loolu rek mooy sababu ñuy ñuy ñuy ñuy taral sa sa sa sa sa jëmu ji. nee na mu ne du loolu rek xamal leen ne bis bii day man ci laa gënee àdduna maa ko laaj soxna Awa mu xamal ma ne Daaru Salaam la euh, bis bu ni woor la. wax ko lépp daal bi mooy guddi gi bi salaay salaam rañaane ma xam ne kon bis bii la ma xam ne kon ci moom laa jaar ba mën a liggéeyal ba feeñ ci jamono liggéeyal sëñ Tuubaa bay am gërëmam kon ak cant war na ma sama diggante ak moom moo tax moo fa naa ni Daaru Salaam gama gane ba nga gama àddina sant fa yàlla bu ma xëyee ñëw jébbal ki soxna aw Bousso mi nga xam ne fii la féetale woon muy sëñ Afi Ñang ma jébbal si ko cant googa loolu moo doonoon tànk yi sëriñ Mouhamadou Mamoun Ñang xamal ko ne ko sant nañ ci yàlla bu baax ba nga ko xamalee na lu mu doon yow danoo xam ne rek foo séq sa tànk yi jëmee ko fa rek foofa sant yàlla war na fa rek ñu loolu rek moo doonoon sababu def gi mu ne kon alhamdulilahi rabil alamin kon bis baa ngoog bu ñëwatee rek na ngeen koy na ngeen ma koy defale noonu sëñ Mouhamadou Mamoun ña ngi xamal ko ne ko fas nañ yéene nag di ko màggale ni jullit yëpp àndee di màgg ak gane àdduna ak rasulullahi salaay salaam fas nañ yéene di ko màggale sa bis bi yow itam la ko màggale noonu mu sant ci yàlla lool bis boobu nag mooy bisu màggalu Kazu Rajab nga xam ne moom la ñuy delmal moo tax bu ñëwee te noonu nga xam ne na la ko kilifa yooyu fonk ba suñ jëmi tey jii noonu la njabootug Serigne Afia ñang léegi léegi ci sët yi wuutoo ci seeni seeni kilifa muy seen i foo fas yéene di ko ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootug kër gi yëpp di ko màggal comme ni ko kilifa googa diggante woon ak Cheikh Mouhamadul Fadal di ko ànd ki nga xam ne moo fi nekk Cheikh Mouhamadul Fadal di Cheikh Abul Baraka. di ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér. ak njabootuk sëriñ Tuubaa gi yëpp di ñaanal sëriñ Abul Baraka mi nga xamante ne bii mooy moo fi teew teewaayu Cheikh Mahmadul Fadil ak rakkam ju baax ja Cheikh Mahamadul Basir di jawrinam ak seeni rakk ñu leen di ñaanal suñu borom yàggal fi yàggal leen fi loolu te may leen wér bu loolu weesoo ci turu sëriñ Ahmadou mi nga xamante ne bii Cheikh Abdoul Fattah ak Cheikh Mahamadul Mourtada ñoo ko tànn jiital ko ci liggéey bii yéen njabootu ko sëriñ Afia sëriñ Ahmadou ngi leen di sant bu baax a baax ndax lii lu rëy rëy la loo xamante ne bii ku xam Kazu Rajab da nga xamante ne bii cosaan li fii la ak Daaru Salaam ndax wax nañ ko léegi sëriñ Mbàkke wax na ko ñu ngi koy siyaare ak mbooleem ñi fi nekk euh, sëñ Abdou Lahad mi nga xamante ne moom la bokkaloon waxtaan wi Cheikh Modou Fadal bu masaan jóge Daaru Salaam fii lay ñëw ci magam di xaritam sëriñ Afia ñaŋ nekk feek moom booba dara xewagul ci Kazu Rajab kon cosaanul Kazu Rajab fii la bu ñu koy wax ci ci Kazu Rajab Kazu Rajab ci Tuubaa fi kër sëriñ Afia ña nga tax loolee Cheikh Modou Fadal seqoon ko ak sëriñ Afia ñu di ko doxal ba sëriñ Afia jóge fi Cheikh du Fadal continuer di ko doxal ci sëriñ Mouhamadou Mamoun ñang ak njaboot gi yépp njaboot gi waa kër Cheikh Mamadou Fadal waa kër sëñ Afia Ñang waa kër sëñ Ibrahima Bousso waa kër sëñ Afia Bousso ak ñi ko seqal ci bokk ñëpp àndandoo di woote bis saa bu màggalu Kazu Rajab jubsee ngir waajale ko màggalu Kazu Rajab lu rëy rëy loo xamante ne bii ñun ñii fi teew kenn ku nekk ku domp ku domp sa bopp domp nga sa moroom ku domp sa moroom it domp nga sa bopp ndax ñun ñi dañ koo seq bokk ko xanaa kay. dañoo xamut niñ ko bokkee waaye ñun bokk gi moom genn la kon lu mel nii buñ ko wootee ñu dagg yitte yëpp ñëw teew si ci yéen ñi leen ko seq yéen ñi ñu ko seqal de da ngeen xam ne ci turu Serigne Ahmadou lii lu ñu yëg la ci suñu yaram lu ñu yëg la ci suñu xol lu ñu yëg la ci suñu xel lu rëy rëy la ci ñun te ni mu rëyee ci ñun noonu la rëyee ci suñuy kilifa ndax li am li am solo mooy jokk ak bokk te ni ko Serigne mbakke waxee léegi. am na loo xamante ne bii mag ña dañ ko daan def mi ngi am ba léegi waaye ñu bari defatuñ ko ñaar ñu daje ci barab nga xool ne war nañoo mën a xamante nga ne diw mii ndax xam nga diw mu ne déedéet nga ne ko xamalanteeg moom parce que yéen a bokk nangam ak nangam. maa ngi fàttaliku 1983 Serigne Gallas Kaltoum moom Serigne Alaaji Baara mii Serigne Saliou moom xamaleeg moom ca Njaareem ndax dañoo ñëw mu ne ma xam nga kii ma ne ko déedéet mu ne ma nuyu ko ma nuyu ko mu ne ma. xam nga li ngeen bokk ma ne ko déedéet mu ne ma sëñ alaaji Baara ko jur sëñ Abdou Fatah la jur ñoo bokk sëñ Fall nga xam ne foofu lañ am xamante bi fi may wax ak yow loolu mag ña dañ ko daan def kon ñoo ngi dénk suñuy suñu mag suñuy mag ñoo ngi dénk suñuy waajur loolee ñu continuer ci waaye ñu ngi dénk suñu boppit ndax loolu war na ko man loolu doon doon doon ne war a mën a gis ñaan ñu war a xamante nga xamale leen ndax loolu mooy tax lii Sëriñ doon wax euh, mu bañ am maanaam ñaar ñoo xam ne bi dañoo bokk li ñu bokk ba nëpp wulbatiku am am am xelum bëggante di am seen seen biir ba ñu bañ bañ ba ñuy tuddante ak bëggante te fekk na ñoo bokk lu bokk lislaam araamal na seen diggante te fekk na bu ñu xamante woon loolu du xew kon ak bokk daal li koy dox li koy doxal moo yëgante yëgante kenn bañ a xool sa moroom di xool ci moom ak xeebeel walla ak raweel loolu bu ñu ko defee ñun ñi war a bokk li bokk danañ ko mën a sédd danañ ko mën a bokk niñ ko bë niñ ko niñ ko bëgg bokkee ndax maa ngi koy wax léegi nii sëñ bu Bousso Tamba ak sëñ Cheikh Modou Fadal euh, sëñ Abdou Kharija ndax euh, wallaay na si man li may wax ci sama xol laa ko tibbee damaa am mbégte trop ci teew ci jataay yu mel nii ndax euh, gis fi ñoo xamante ne bii da ngeen a bokk li ngeen bokk ba noppi yàlla dogal ngeen mën a jaxasoo ba mën a def bu ku gis sa bopp mel ku gis sa moroom mel na sa bopp nga gis loolu daf ñoo dal te te lii ma lay lii may wax lu dëggu ci ñun ndax sëñ Abdou laxaat euh, bu sa euh, maxtaar a ngi nii ak sëñ Abdou Lahad bu sa Cerno dañuy séq yoo xamante ne bii bu dutoonu bokk duñ ca duñ ko mën a eggale fañ fa mu egg ndax su boobaa kenn kenn ku ne mën ngaa xool sa borom ne damaa yàpp moo tax mu waxee nii wala damaa yàpp wala moo tax mu defe nii te la tax ñu di ko def mooy kenn ku ne bëgg mu yëg sa sa moroom ci yaramam nekk ne yaay moom moo yow loolu rek ko waral sëñ Fallou Bousso léegi moom sëñ Abdou Xarija ñu ngi ciy waxtaan sëriñ Ahmadou bis bi ñuy faral di def ci koor gi ñu ngi ciy bàyyiloo xel waa ko sëñ Afee ñang donte ñu ngi ci sax nag waaye ñu yëg bu baax ndax koor gu jot ci ñaari koor yi weesu dañuy def benn bis boo xam ne dañuy jël jóge fii def ay oto jukkaay ak jukkee alxuraan ci biir oto yi di wa jàng di jàng di jàng ba egg Afee Jolof barabu kër eh, soxna Mati Ñang suñu demee ñu ko yëgal suñuy kilifa daaw ndeysaan yabal sëriñ Abibu yóbbaale ay xéewal yu baree baree baree bare bu ñu demee ñu wàcce fa ay kaamil jàng fa ay xasida ñaanalaat ko soxna si ngir nga xam ne Cheikh Modou Fadal ak bokkam yu baax yi suñ borom da leen a teral démb tey doog a ñëw bis boo fa foofee bu ñu fa eggee ay mbokkam la fa tëddal yu góor waaw ay mbokkam la fa tëddal yu góor te boo fa demee moom dong lañ fa defar barabam moom dong lañ fa defal barabam te sëñ bi xam nga dara sëñ blaat ndax ren ñoo àndoon dem jeg ñu ne koy fàttali lu ko ñun ñëpp ñu ñu waajal ko ba bu koor gi ñëwatee lu ci waay mën a joxe ñu def ko ay suukar ngir terale ko suñ bokk ya fa nekk ñoom bu ñu ñëwee danañ xam ne njabootug Serigne Touba ñëw nañ waaye njabootug Cheikh Modou Fadal ñëw nañ ndax dañ leen yóbbul ay suukar yóbbul leen ay ceeb loo xam ne baax na ci ndaw ku nda yóbbu leen ay tàndarma ak i bagage ngir ñu xam ne soxna si tëdd fii suñ borom a ko teral ana ñu ko koy indil mooy ay sët sëtaatam kon loolu euh, ñu ñu waale ko xel comme dañoo bokk loo xam te ne su ko séddoo ñu ñu ñu yëgal leen ne daal koor gi ñu ngi koy waajalaat suñ Fallou Bousso moom suñ Abdou Khadir mais mooy ci moo ciy ñu def ay délégation ay oto yu baree baree baree bari jóge fi ñu dem siyaare soxna su wàcc fa ay kaamil joxe fa ay xéewal ngir jëmmi soxna si nga xam te ne bi ñëpp ñoo ko bokk bu loolu weesoo sëriñ Ahmadou euh, euh, sëriñ kan moo jiite daayira bi sëriñ Abdoulaye sëriñ Xaadim Ñang sëñ sëñ Ahmadou ngi jël ak cant gu rëy di ko teg ci seen loxo di leen xamal ne liggéey bi ñu ko liggéey li ñu ko dénk ngir mu wan koo doxal ci waajtaayu màggal gi jàpp ngeen ci jàppin wu rëy a fu ngeen ko woote woon danañ ci ñëw ndax moom sax euh, woowoon na yeneen bokkam ñu ànd ak sëriñ euh, alaaji sëriñ Takko ngir ñu ñëw fekke si euh, bis bi ngeen fi def waaye damaa yaakaar ne su fekkente ne bi màggal Kazu Rajab Daaru la déparé woon alaaj sëñ tàkku ñëw teew mu ñëw fii sëñ Ahmadou ñëw <laughs> fekkante feek moom yaakaar na ne wax alhamdulilahi rabbil alamin rek la ñuy wax ndax euh, jawaab bi day daal di tàbbi ci biir ndax daaru salaam la ak sëñ Afia kon sëñ alaaji sëñ tàkku ngi nii moo fi teewal waa daaru salaam yëpp kon euh, ñu ñëw fekk fi sëriñ Ibrahima ak euh, sëriñ xaadim ñi nga xamante ne bi ak sëriñ talaa ak sëriñ xaadim ñang ñu ñi nga xamante ne bi ñoo fi teewal sëriñ Modou Mamoun ñang loolu ak cant rek la ci ñun di leen xamal ne daal njabootu Cheikh Ahmadou Fadal ci turu Serigne Ahmadou noppi nañ takkaayuwaat nañ yeesluwaat nañ euh, fabuwaat nañ ngir lépp loo xam te ne bii luy lu rafetal la ci diggante nit ak mbokkam bu leen ñu ci xaar nañ leen wóor na bu dee lu ñuy bind na ngeen bind suñu tur ci kaw jëlul ngeen ñu lay laaj bu fekkee ne lu ñuy laaj la ci mu jóge ci paas ci ci poos wala ci pas-pas wala ci doole. ne wóor na ñu noppi nañ ngir ànd jiital sëñ Ahmadou mii ngir loole ñu ñu def ko loo xam mu mu tey tey ñaan mu dëppoo ngërëmul suñu kilifa ndax lu lépp loo xamante ne bi lu baax la daal ñu ngi leen di ñaan bu ngeen koy nos na ngeen ci nosaale bu ngeen di woote na ngeen ñu woo wooga it mooy yëgal rek bu ngeen ñu xasee yëgal rek ñu noppi nañ pour ànd ak yéen loole ndax dañoo bokk ak yéen loo xam ne mënu su ko bokk te kenn tànnut sa moroom ngir bokk ak moom sa morom yàlla mooy tànn ak bokk di ko joxe suñ borom moo ñu tànn boole ñu waaye nag li rafetal bokk ci bokk lay jóge kon nañu gën a góorgóorlu bu baax ci rafetal ko kenn ku nekk jàpp sa moroom muy sa bopp kenn ku nekk jàpp sa bopp muy sa moroom kàddu gi ñu ngi koy jël ci di ko jot li ci ndigalul euh, suñu kilifa suñu kilifa bu mag gi mooy a cheikh alxaaj Mouhamad Mahmoud Niang mi ci biir ñu ñaan yàlla bàyyil nu ko fi ci sunu kanam te wéral ko ci wetu mbokkam mu baax ma euh, Cheikh Abou Baraka muy jiite njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel ñoom ñëpp ñu ànd ak kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha ak waa Sëñ Tuubaa yëpp ak bokk yëpp ak taalibe yi kon ci ndigalul kilifa yi euh, te ki fi teewal kilifa yi mooy sunu baay euh, Cheikh Mouhamadou Mourtada Sëñ Mourtada ña ngi toog nga xam ne moo fi nekk moo fi teew teewaayu Baye Xaadim ak Baye Ibrahim ñi nga xam ne ñooy jëwriñu eh, alxaaji Mouhamad Mahmoud Niang mi bokk nekk ci bokk njaboot gi ci turu kilifa yooyu lañuy jëlee kàddu gi ak ci turu sëti Sëriñ Afiya Niang yi nga xam ne ñoo amal jataay bii ci biir waajtaayu màggalu Kazu Rajab kàddu yi nag kàddu yi sant la yu kilifa yi santaan yi jot li ko sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mi ñu xéewalee euh, Sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu mi nga xam ne euh, moom jataay yi yépp moo ko waral lépp rek ca moom lay dellu kon xéewal googu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di santit maam yu tedd ya nga xam ne ñoo ñooñu jotale ci xéwal googu amoon pas-pas ci sëriñ bi topp ko liggéeyal ko euh, namptal ci seenu njaboot ba loolu yegsi ci ñun ñi sant mag ñu baax ñooñu bu baax di leen ñaan yàlla fayal nu leen kàddu cant yi ñu ngi koy tàmbulee dina bu ñu santee yàlla sant Sëriñ Tuuba bu baax a baax ñu ngi sant Cheikh Mouhamadul Fadil mi waral jotaay bii ndax bi ko sunu borom baaxee mu ñëw jamono bokk ci sëriñ tuuba toll ci ni mu ci toll liggéey ci liggéey bi mu ci liggéey ba doon ci li mu doon mu sant yàlla bu baax ci ñëw gi mu ñëw jamono nga xam ne rëccuut lu mu fi doon ñëwee muy sant yàlla ci dikk googu ba muy sant yàlla nag xelam bàyyiwaalewut ba fàttewul ne am nay bokk yu ko yàlla boole mu firndeele cant ga ci jokk bokk cant gi mu doon sant yàlla ci ñëw gi ñëw jamono bokk ci Sëñ Tuubaa liggéey ba am gërëm ci jëf ji xam nga cant i'malu aala Daawuda shukran cant dañ koy wax dañ koy fas ci xol di ko wax ci làmmiñ waaye dañ firndeel ci ay jëf moom nag ba mu ko bëggee la ci jëf jëf jëm tànn ngir firndeel ci ak cantam yàlla mooy jokku bokk moo tax mu daa yëkkati jéegoom yu tàdd ya di fanaani daaru salaam gam feeñe jamono te am fay bokk yu jaxasoo woon ak moom te am kóllëre suñu kilifa bu tedd gi alxaaji sëriñ tàkku mu xam fadal firnde la ci law li sëriñ bi sëq ak waa Daaru Salaam ak sëñ Mouhamadou Mamoun ak ñeneen eh, muy dem Daaru Salaam kon di jokki bokk foofa jokku ak bokk ci bokk ya foofa ak fet li kolé ak barab ba ak jaar dafa sëriñ ba jaar ak liggéey ba mu fa def waaye mu di fa jógee ñëw fii ci kër sëriñ Afiya Ñang ngir li fi soxna Awa dëkkoon soxna Awa ci kër sëñ Afe la dëkkoon nekkutoon nag ci kër gi ndax booba kër gi amagul soxna Awa bi muy génn àdduna ba ma génnee àdduna fële ci kër gee ñuy wax gent ba euh, ci wetu ko sëñ Jiili moom sëñ Fàllu foofee la sëñ dëkkoon fa la soxna Awa nekkoon ak moom fa la àdduna waaye ñu tuxoo foofa ci 1948 ñëw fii ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Fadil ngir liggéey bi Serigne Fallou doon defaloo Serigne Afia bëgg mu gën a jege barab bi moo ko indi fii Serigne Fallou nag muy ñëw fii ci barab bii di fekk Serigne ngir feeñal ak cantam gu muy sant yàlla ci euh, feeñ gi mu feeñ jamono te bokk ci Serigne bi waaye jaar gi mu jaare ci koo xam ne rëccuwul jaar gam jaare ci moom mooy Soxna Awa bokk ko mu jokk nag mu di ko firndeel ci ñi mu bokkal Soxna Awa mooy Serigne Afia ak i euh, rakkam soxna Marema Kunta waaye ak i nijaayam sëriñ Afiya Buso sëriñ euh, Ibrahima Buso ak ñi ci des kon jokk bokk googee mu doon def di yëkkati jéegum di ñëw fii loola mooy li ñu jàngal jataay ñu ñu ñu ñu xam solos jokk bokk ba jataay yi di am dugg ci biir jataay yooyee kon jataay bii mi ngi dugg ci biir jataay yi nga xam ne waa kër Cheikh Mouhamadou Fadil eh, ñi ngi koy def ngir waajale ko màggalu Kazu Rajab ci jataay bii ci biir jataay yooyee la dugg moo tax jëwriñ ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey boobu ci turu kilifa yi turu sëñ Abdou Fattah sëñ Murtada ñi nga xam ñooy jëwriñu sëñ Bachiru mi jëwriñu Cheikh Abou Baraka ñoo ñëw ci jataay bi taxaw si ko ngir xam ne jataay bii ci biir jataay waajtaay màggalu Kazu Rajab la dugg kon ñu ngi sant ñépp di ko tàmbalee Cheikh waa Cheikh Mamadou ñi nga xam ne xam nañu ne euh, ñaari kër yi ak kër yiñ bokkal kër gi yépp genn kër la euh, ñi ñëw di taxaw si liggéey bii xam ne seen yëf la ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax di teg cant gi ci loxoy kilifa yi fi teew Euh, sëriñ euh, alxaaji sëriñ Tako ak sëriñ Ahmad al Badawi ak sëriñ Cheikh Mame Fall yi fi teew sëriñ ak sëriñ Moustapha ñeneen ñeneen kon ñu ngi teg cant gi ci loxo yi ñooñu ngir ñu jottali ko ci loxo kilifa yu tedd ya nga xam ne ca ñoom lañu bàyyi koo euh, mu cant goo xam ne dafa ànd ak ay ñaan di ñaan kilifa yi yàlla yàggal seen taxawaay ci suñu kanam dëgëral leen yàggale seeni yéene te xiir nu itam ci ñu roy ci seen i di sant bu baax a baax sëriñ xaadim moom sëriñ Abdul Fattah ci kàddu yu rafet yu jot yu dëggu yu jóge ci xol yuy dëgëral ak bokk yi nga xam ne wax na ko muy loo xam ne wax dëgg yàlla euh, xol yépp tooy na ñépp bég nañ ci ñu ngi lay ñaanal baax sa taxawaay ci biir sëti sëriñ fal yi yaa ñi nga bokkal ñépp yàlla dëgëral seen taxawaay ñi nga rafetlu seen dox yi nag seen gis-gis ndax bu ngeen xamee ne da ngeen bëgg a liggéey seen maam seen sëriñ bi suñu sëriñ ngeen xool la mu bëggoon ñu liggéey ko ci mooy tam jokk bokk bokk ca ngeen di ko def at mu jot ngeen di tànn ay bokk ay wëlëre di leen nemmiku ji ci turu Cheikh Mamadou Fadel ak njabootam loolu gis-gis bu rafet la ñu leen ci ndokkeel di leen ci sant bu baax kon ñu ngi sant bokk yi yëpp yëpp yëpp yëpp ah, bu ñu santee waa Cheikh Mamadou Fadel ñi ñëw ñu ngi santit nag ñi nga xam ne ñoom ñoom benn lañu kër Sëñ Afiya bu ñu ko waxee Sëñ Afiya daa am bokk euh, yu mbokkal bokkal aafe xam nañ ne jataay bii bi ñu koy ubbi alxaaji Mouhamad Fadil Ñang mii doon wax ci turu sëñ Modou Mamoun dalal gan ñi ak sëñ Abdou Lahad Ñang mii nga xam ne moo doon ubbi jataay waxtaan wi doon ko tëj euh, ñuy njabootu maam Cheikh Omar ñang Cheikh Omar ñang nga xam ne sëriñ Afiye maam Cheikhu la am ak maam Fat Di sëriñ Abdou Soxna ko man doom yooyu la fi bàyyi ci lu ma xam maam Cheikhu moomu nag mook sëriñ Afiye lépp lu ñu wax ci sëriñ Afiye ñoo ko ànd ñoo nekkandoo woon Jolof ci kër sëñ Mor Soxna ko man di fi jàng alxan mokkalandoo bindandoo ay kaamel ba yàlla dogal bi sëriñ Afiye bàyyi ko sëñ Fallou daal wax ne nañ woy sëñ seexu ca xulle mu ñëw ci kër gi moo ñëw toog fii ci kër sëñ ci lal bi ba mu fa toogee la tàmbalee yëg dara moom it ba mu fi toogee weer yi tolloog yem ko mage woon la ko fekki euh, kon bu ñuy wax bokk yi foofu lañu tàmbalee ñoom kon lu ñu wax sëñ rek wax nañu ko ci maam seexu te nii jotaay bi tëddee wane na ko euh, noonu ñu ko waxee noonu ñu ko waxee ci njabootu waa kër sëñ Modou Fadiama di ko waxee noonu ci waa kër sëñ Baara Ñang ñi nga xam ne ñoo ko sëñ bokk ca Jolof ak bokk ba noppi bokk it pas-pas gàddaayee Jolof ñëw fekk sëriñ bi te delluwuñu noonu tam lañ koy waxee nag ci ñi nga xam ne ñooy nijaayi sëriñ Afe yi waa kër sëriñ Afe Bousso waa kër sëñ Ibrahima Bousso ñi nga xam ne ñoo soxna Awa Bousso ñoo bokk lépp te njaboot gi masa doon gennuk njaboot ñetti njaboot yi di gànnum njaboot gox mosuñoo teqalikoo euh, ñoo ànd ci lépp ba ci jataay bii firndeel na loolu kon bokk yooyu yëpp ñu ngi leen sant li ñuy sante bokk yi ci yëpp itam yi nga xam ne euh, sëñ Abdou Lahad Mbacke lim na leen euh, kon lii mooy kàddu yi ñu doon jat ci turu kilifa yi xam naa ñoom bu ñu ko jot ci loon seen bopp dana gën a jot dana gën a rafet dana gën a mat waaye lii la yàlla dogal kon ñu gise ko noonu rek Euh, kon ñu ngi massawu coono kilifa yi xam nañ ne fan yi sonn nañ lool waaye nag li ñuy sonn euh, jar na ko kon ñu fajliwaat suñu laxasaay fas yéene waajal bis bu mag bi nga xam moo ne ci sunu kanam mi Kazu Rajab di guddik rañaan mi ak yéeg waaye di guddik gane jamono Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne xéewal bu mag a mag a mag la doon ci biir xéewali Sëriñ Tuubaa yi kon ñu ngi tënk fii kàddu gi